5M TV Sénégal mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm Cheikh Bara Ndiaye yëkkate ay kàddu jëme ko ci député bi nga xam ne mooy di Fanta Sall ginnaaw bi nga xamee ne rek ni ko fan yi doon gis rek ay photo ak yenn ci ay image yoo xam ne ñu ko gis ci réseaux sociaux yi mu nekk ci assemblée nationale bi nag maanaam nag mel ni nekk ci këram loolee nag jur bës ci Sénégal ba instant bi nag moom la ñu waxtaanee moom mi nag di Fanta Sall nekk ab député euh, député moom mi nag di Fanta Sall daal instant bi nag Sénégal yi bëri daal ñu ngi koy waxtaanee di wax rek li may def tegu ko ci yoon nekk ci assemblée nationale bi nag mel ni ku nekk ci sa kër loolu nag nekkul benn respect Cheikh Bara Ndiaye nag yëkkati ay kàddu di wax ne rek député dafa am fu ñu ko teg fu kawe kawe nag moom ci biir assemblée nationale bi nag war naa def lépp lu mën daal ba kenn du ko xeebee lenn moom mi nag di Cheikh Bara Ndiaye di wax sa kër loolu nag nekkul loo xam ne daal dëgg rafetul benn yoon nekk mel ni koo xam ne daal yaa ngi ci sa kër mel ni koo xam ne daal lañu la tegee rek nekk ay caaxaan la wala kon mbokki jox leen dig daje beneen incha ci 5 TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné reportage bi jaa ngeen jëf ci topp gi.